xam nga xam nga le problème mooy gis nga euh, Sénégal. Mm-hmm. daf ci bari ñoo xam ne dañ lay dañ lay dañ lay arbitrer selon leur position wala selon ni ñu bëgg ngay waxee léegi nag bu fekkee da nga bëgg nekk une personne constante boo xamee li ngay wax seetoo ci mu neex ñi seetoo ci mu neex ñi seetoo ci séduire un électorat mm-hmm. li ngay wax da koy seet fu dëgg féete nga wax ko à chaque fois da ngay wax les vérités de l'heure noppi ci léegi bu fekkee da nekk ci loolu Sénégal suba mu xalab la li naan ay ay ay tagg mën naa doon ay xas comme ay xas mën naa xëy doon ay tagg mhm. parce que dañuy gis ni yow ba ngay waxee nii peut-être arranger woon na leen c'était pour leur compte ñooñu tey naturellement dañ lay bëgg dañ lay accueillir au bras ouvert léegi au moment où nga wax dëgg boo xam ne arrangé tu leen rek nga gis nag ñu commencé maintenant génnee seen seen seen seen seen seen seen seen i seen seen i seen i jàngat loolu tamit ñu lu ñu d'accord la parce que ñun ñoo préféré dugg ci politique donc munuñu bañ baatu ginnaaw ku bëgg nekk ci kanam faaw nga dégg sa ginnaaw nii la mel. léegi nag li ma la wax mooy ñun waxuma la ba tey encore une fois ne waxuñu ci lii xew yii xew ba tey ñu ngi ciy wax président assemblée bi ku dégg euh, euh, intervention yu mu fay def xam ni il est le seul boo xam ne ministre bu fa taxaw. jafe-jafe sénégalais rek la lay wax député yu ci bari ministre bu fa taxaw ay nur ay turu nit lañ lay wax diw def na lii diw moo wax lii kii nañ génnee ki nañ def lii waaye moom benn yoon la tudd turu mooy ba ministre de la justice taxawee Ismaïla Madior Fall mu naan ko ni ngeen defoon Karim Wade defoon dafa mel noonu ngeen bëgg a def Ousmane Sonko benn yoon boobu la fa prononcé turu doomu aadama bu dul loolu li ci des yépp il pointe son curseur sur les problèmes des Sénégalais. les difficultés que vivent les Sénégalais te loolu li ko ko may mooy ba mu doon toog jàkkaarloo chaque vendredi durant les jours de la semaine daf doon dugg ci gox-goxaat di rencontrer le Sénégal des profondeurs di xam seen difficulté di mën